télé bi bégal sama askan Ladoum TV c'est Ladoum TV Cinquième édition, foire cercle des éleveurs de la banlieue kay taawal noonu waa réew yi doo koy solal seen robe lay léegi bu fi nekkul ki ko représenté na ñëw a ñëw laay kaay a boobu ngi taxaw ndeysaan lii dafay wane ni c'est nous dans nous ñoo bëgg mbir mi ñoo ko war a séddoo li ñu naan nen bi nan ko may nees ku ne jàpp box numéro 91 tàccu leen ko bay leen ko loxo box numéro 94 yéeg na pëjëm quatrième place baa ngi noonu di ñëw di défilé secrétaire général Réli regroupement des éleveurs Ndiarème Limamou Laye ñu am taxawaay bu am solo ci biir banlieue bi sion 107 Pape Sidi Mara Pape Sidi Mara 62 tàcc loxo bu ñëw Pape Sidi Mara 62 yegg na ba jëm di ñëw jël troisième place solo ginnaaw ba ñu ko natee ba pare bu génne ay menstruations yu extraordinaire dañu koy enchaîner la deuxième place. box numéro waa Samagal TV pare ngeen TV pare ngeen sunu TV pare ngeen TV pare ngeen la deuxième place box numéro box numéro quatre-vingt tàcc leen ko bu box numéro quatre-vingt làmb ja innovation yu extraordinaire yi nga xamante ni cercle des éleveurs de la banlieue bu koy def di jël ay personnes di leen jaajëfal di leen dundal champion catégorie agneau septième édition Salsep salon wala foire du cercle des éleveurs de la banlieue box numéro Eh, xar bi grâce nee na ma xar bi rafet na DJ Systems të të të të waaw féeree ñetti xar rek ñoo fa des wala ñaar ñetti yee sunu numéro 34 vainqueur septième édition catégorie agneau na ñëw yéeg ci kaw bàyyi leen ko mu ñëw félicitations Assane Ndiaye félicitations muy guddi muy bëccëg non booy yi seen raxas day fokk mool ñoom tudde neen seen bopp sans limite di def ay innovation ba nit ñi yëpp ràññee leen ci waaye fi léegi nii dañuy fëkk bool yi. ñu koy évaluer suñuy xar. ñu ko ciy jaajëfal bu baax baax baax. catégorie agneau. tey jii ngeen gis vainqueur bi mu ngi noonu ci taarixu élevage di jaajëfal sama mbokki communicateur bu baax a baax félicitations éleveurs yi yàlla seen jàmm yàgg télé bi bégal sama askan